mbokk téléspectateurs yi comme ni ñu leen ko diggee woon ci plateau bi dañuy ñëw ak suñuy invité wax ci li nga xamante ne moom moo aju ci débat bi ba tey mais cette fois yi ci wolof ñu continuer débat bi euh, docteur Meissa Babou euh, depuis indépendance depuis également bi pouvoir yi ñëwee muy Senghor Abdou Diouf Abdoulaye Wade ba ci Macky Sall dafa am ay programme yu bëri yoo xamante ne jot na fee jaar wax nañu fii li nga xamante ne moom moo aju ci programme d'ajustement structurel ci Abdou Diouf la woon et d'évaluation amoon na fii donc Abdoulaye Wade ñëw na fii ak ay programme yu bëri fi mu nekk nii ñoo ngi tollu ci euh, yoonu yokkute la woon bi président Macky Sall di euh, jël le pouvoir actuellement on nous parle de plan Sénégal émergent muy xaalis gu bëri loo xamante ne soit que am na ni ñu koy tuddee jëlee ko bitim réew wala xool daal nan lañ ko defee te ba léegi dëkk bi moo ngi nekk ci ay jafe yoo xamante ne en tout cas demaguñ ci développement ci programme lan mooy problème bi Sénégal am. waaw maa ngi lay mm, sant bu baax di nuyu suma xarit ji bi di wax ne kontaan naa partagé lool plateau bi ak moom ah c'est difficile parce que c'est une longue histoire mais euh, Sénégal dafa tënku ci euh, politique yoo xam ne nii soo xoolee yu ci ëpp ñu ngi koy tëggee ci biti réew maanaam c'est très rare ngay gis. fii ci réew mi doomi réew mi toog mu mel ni dañoo def réunion boo xam ne ñoo nationale lay doon su ko defee ñëpp ku ne wax ñu tënk ko ci këyit mu nekk waroon nekk assise national de de de l'économie boo xam ne dañ ciy d'accord que ne lii kat suñ defee nii def nii def dana baax yëpp politique yi dañuy xalaatal seen bopp rek indi tegal ñu beneen ba ca des mooy ñi nga xam ne nag dañ ñoo seef ñi ñu seef mooy euh, tubaab yi ci seen bopp ndax tubaab yi. bu fekkente ne seen intérêt taxawul loo def dañ ko yàq maa ngi doon wax léegi ci nasaraan ne ñi nga xam ne jëm nañu am fulla tuuti dañ leen a rey ñi ci des dañ leen faa dàqe ku ci mel ni Thomas Sankara ba mu amee fulla taxaw ne dootuma jël euh, coton li ñuy euh, cot ok wëtën bi ñuy bay mm-hmm. ci Burkina dama koy defar piis sol ko ñaw ko daal di sax na président yi lii ma sol lépp euh, waa Burkina ñoo ko defar. waa mais mais loolu sax dafa am benn politique bi nga xamante ne dafoon na ko te mu manqué suñuy njiitu réew. mooy moom ci boppam yére boobu moom daf ko daan sol. ba pare imposer ministre yi yëpp kenn ku nekk bureau mu doon def ay visite pour fekk kenn ku nekk sol loolu. waa xam nga bo loolu mi ngi mi ngi doon commencé changer li ñuy wax mentalité xel ak moom mi nga xam ne moo jiitu sol ko nangu ko sol ministre di ko sol defe naa ne askan bi yëpp. su boobaa lu ñuy wax patriotisme man nañ ci tëdd mais li doon bon kay mooy nga bëgg ne waa réew mi sol ko te moom du ko sol di soli lu yëf tubaab donc man jàpp naa ne jéem na mais kooku dañ ko rey defe naa ne ku mel ni Axel Kabou dafa demoon sax ba mer ci bi muy bind ne Afrique daal dafa bëggut bëggut développement tellement da ngay xool xam ne day mel ni lii jaaduwul mais sunu njiit yi mënuñ cee génn. kon pour wax la ne foofu dañ ñu noot ñaareel ba xaalis bi nga xam ne moo ko war a def alal bi banque yi koy joxe banque mondiale yooyu dafa am ay charte ñuy teg te bokk na ci charte yi lebal ñu loo xam ne mënuñ koo fay daanaka ku laabal bët fu ko neex lay xool donc dama jàpp ne ba tey jii nii koomu Afrique tarde na bëri na ci ay pàcc yoo xam ne nii mën nañ expliquer lu tax muy tardé mais ba tey jii nii bañ génnee ci Euh, at ma nga xam ne mag ñi dañ doon wax naan sengoor onkat ak euh, sëñ Fallou diggante defe naa ne 1960 jàpp 1970 euh, dañ doon wax ne ñetti ñooñu bañ fa tasee àddina bu bu daanaka àjjana lañ amoon wante bañ ca génnee gisatuñ Senghor gisatuñ sëñ Fallou sa Abdou Diouf gisatuñ Senghor da daal di gis ni immédiatement ci la ñu commencé ndóol sécheresse euh, pétrole bi di yéeg wàcc di ñu bëgg di ñu bëgg a gaañ Abdou def ñu lu ñu wax ajustement structurel ñaar fukki réew mi ndóol ñu daal di voté ñu gagné ko Abdoulaye président Abdoulaye di ñëw góor góorgóorlu nag parce que wax nag daal bi mu ñëwee xam na ne li daloon ñee bëggul mu dal ko dafa ñëw rek ubbi dem ci naar yi dem feneen ak feneen. wut ay pexe boppam fii nag wut ay programme boppam ba pare yu ci ëpp it mu jox ko aussi waa réew mi ndax entreprise sénégalaise yi fi nekkoon ay FDC ñoom ñoom ñoo ñoo doon liggéey tali yu mag yi mu fi def. mooy li ma la wax ne la rek képp koo xam ne ne fi ne ne taxaw nga pour génn ci yoon wi nga xam ne tubaab da ko teg daanaka mën nañ la faa faagaagal kon nag euh, kon li ci des dafa bari. lii dafa naa ne tey tey tey tey tey cinquante ans après sax li ñu war a waxaat mooy. kañ lañu jotaat suñu indépendance deuxième indépendance la ñu war a laaj léegi. <laughs> ok léegi docteur Djibi euh, suñu xoolee ci programme yi ma lim léegi mooy euh, depuis programme d'ajustement structurel ba plan Sénégal émergent muy ay naal yu bëri yu ñu def mais ba tey daal euh, jafe-jafe yaa ngi ci biir réew mi ba tey limaguñ ñu ci dëkk yi nga xamante ne développé nañ te xam-xam baa ngi fii nit ñi koy def a ngi fi lan la problème de société la problème culturel la ak lan moo jërëjëf sëñ bi maa ngi lay nuyu bu baax di rafetlu invitation bi di nuyu di félicité aussi Meissa euh, di ñaanal rajo bi mu gën a jëm télévision bi mu gën a jëm kanam euh, xam nga am réew dafay am ay màndarga am réew dafay am aada dafay am cosaan dafay am gëm-gëm yooyu bu fekkee ni da koo bëgg a jël teg fële ba pare nag daan damay fàkk yoon boo xam ni nit moom moom ma ko tegtal ni ma foofu ngay jaar doo mën a jëm kanam mu gaaw wala sax jëm kanam du mën a sotti euh, gis nga plan yi ñu fi gis yëpp yi ñuy wax yu bëri gisuma ci ni Cheikh Amadou Bamba waxoon na lii gisuma ci Seydi Hadji Malick Sy waxoon na gisuma ci Maam Bu waxoon na lii gisuma ci Seydina Limaamu Laay waxoon na lii du gisuma ci ni Maam Ibrahima Niass waxoon na lii mais kon te ñooñu ñëpp seen programme mu nekkoon nañu liggéey nañu jàng nañu bay nañu napp nañu góorgóorlu nañu eh, nañu njaxlaf nañu jub nañu sell ñoom seen programme ci loolu la tënku woon nga bëgg defar programme buy doxal sa réew ñooñu nekk fi am ñu leen gëm di yëngu ci loola nga daal di koy bàyyi dem di doxal leneen am na problème am na problème problème mi ngi foofu bu rëy dama lay jox benn firnde tey jii dañu am problème pour jël impôt c'est-à-dire que nit ñi dañuy am ci lu ñuy yëngu waaye du ñu sawar a dem fay impôt ñenn ñi dañuy nëbbatu ñenn ñi boo leen waxee indil impôt ñu bañ il faut nga foqat ko seen loxo bi demee ba bés bu ne nga dégg kaa yu demee noonu waaye addiya nag ndax bu ñu koy joxee dañuy foqati loxo nit ki ni ko ñëwal nga joxe addiya nit ki moom moo koy joxe ak sawar ko mooy mooy wane ni kii modèle bi na ci ànd na kooku kenn di ko wax ñëwal sax moom mooy jóg di koy joxe ba ñu ni ko doy na mu bañ ni doyul damay kon ne di joxe parce que gis na boppam ca loolu ñuy doxal gëm na ko mu ngi ca biir yëfu boppam la bee nag nit ki dañ koy dañ koy woo di ko foqati loxoom parce que gisu ci boppam donc loolu dama benn waxtaan la bu ñu defoon ci kiiwu màggal gi waa impôt yeeg yooyu ñëwoon toog ñu yore affaire yi ma wax le man leen xalaat leen ci loolu xalaat leen ne sénégalais tey boo ko nee fayal impôt à commencer par man bu fekkee am na pexe du dem fay ko wala bu amee bu amee pexe nëbbatu njuuj njaaj ba génn ci dina ko def bu dee addiye bi ngay dem di joxe sëriñ bi moo xam nag sëriñ boo mënti doon bu mu mënti doon ci ak sa gëm-gëm ak tarixa boo mënti bokk gars yi dañuy dem di joxe seen seen seen contribution pour que mbir mi ji gën a ñoŋ loolu kon nga bëgg a defar nag plan buy defarum réew bëgg a jël loolu teg fële loolu moo lay wan ne ba léegi dañoo nekk cib nooteel dañoo nekk cib nooteel te gis nga euh, alalu jàmbur lu mu am solo solo solo sa alal moo ko ëpp solo maanaam nga départ ci li nga am nga départ ci li nga moom leneen li jógee fële ñëw fekk la ci la nga ne ñëw yokk la suqale mais mënu bëggoo jël lépp teg ko ci keneen kële la mu moom ak la mu indi. kon ba tey daf dañoo desee gëm suñu bopp. dañoo wala dañoo desee wóolu suñu bopp. d'abord ñun fi ñu bëgg a jublu du suñu jubluwaay leerul ci suñu bopp fi ñu bëgg a jublu du suñu jubluwaay leerul ci suñu bopp ak lépp lu ñu mën ci wax nag bi ci topp moom mooy euh, li Joseph Kirbo Joseph Kizerbo di wax basangu jàmbur la naat des autres nee na gis nga bis boo wàccee sa basang nga daw jublu basangu jàmbur. mën naa am nga am place waaye du nekk place ba gën parce que place ba gën jàmbur moo cee toog bu ko defee yow nga daal di mer gedd daw di jëliwaat sa basan bu boobaa que la gën a soxla basang bi jël na ko dem dem moom yow nga tumranke doo yor basang. léegi sax dafa am leneen loo xamante ne ab firnde la ñi fi nekkoon di xeex ak suñu maam yu nga tudd jéem pexe yu nekk antuwul ñu toog fële dellu si waat ñun aussi suñu nguur yi àndaat ak ñooñu nga xamante ne ñoom ñoo doon xeex suñu maam pour de suqali suñu réew. yaakaar naa ne xel waru mais mais moom laa lay wax ni la euh, gis nga lii taxoon mag ñu baax ñooñu ma lim léegi doon xeex ba léegi mi ngi fi léegi xëy na sax xëy tey la gën a tar xeex boobu ñu taxoon ñuy xeex pour moom sa bopp pour bañ ñu noot la pour yow fa nga bëgg a jublu nga jublu fa loolu nag tekkiwul ni da ngay tëju sa bopp nekk nañ ci àdduna bi nga xam ni kenn mënul tëju sa bopp waaye nag nga am fulla bu toll ni ni man ni ma bëgg a tabaxee sama réew nii laa ko bëgg a tabaxee yow nag léegi nii laa ko bëgg a tabaxee damaa bëgg nga ñëw jàppale ma ci bu fekkee ne intéressé na la d'autant plus jàppale boobu du ab may du ab sarax lu ma lay delloo la donc ba pare nag ñu ni ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk ca digg ba nañu nekk ñu sell xam nga almaami Souleymane Baal 1776 la bind ay ay ay tomb jëmale ko ci démocratie 1776 tey jii bu ñuy wax démocratie ñu ngi ne Rousseau. ñi ngi ne Montesquieu ñi ngi ne John Locke almaami Souleymane Baal mu bind 1776 ñi séddale wàll la maanaam nee nañ yow yow yow miy séddale le fait ñu jox la cëru séddale yow loolooy sa wàll maanaam séddaleel ñeneen ñi am yow doo ñàkk ndax yow cër bi ñu la jox ni la séddaleel loolu doy nag cër maanaam dafa bind lu bëri charte de Kourougan Fougan 1235 dans l' ancien empire du Mali maa ngi koy wax ba ma ko yàggul ci benn colloque bu ma demoon foofu dama ko wax ñenn maliens yi ñi ma mais ñun ñun de ay maliens lañ mais li ngay wax ni yëpp dara lañ ci xamul 1235 charte Kourougan Fouga ñu defee ko foofu Mali waaw parce que jàngale ko ca l'école ya mu nekk loo xam ni démocratie la organisation société la gëm sa bopp la bokkalante jëfalante jàppalante yooyu yëpp ñu daal di koy jël nasaxal bëgg a toppandoo ay tubaab yi nga xam ni tey jii ñoom lan la ñu gëm jigéen ñi nañu sëy jigéen góor ñi nañu sëy ak góor ñi jigéen la moom moom boppam lu ko neex lay def euh, mais yàqu-yàqu bu ne ñu bëgg koo jël daal di indi jëme suñu réew te te te Paul Valéry nekk tubaab ne ñoom dem ne ñun dey tubaab yi léegi sànku nañu réer nañu nañu wut beneen yoon bi nga xam ne moom moo ñu mën a gindi Philippe Coutinho leen yoon bi leen mën a gundi gindi mooy yoonu Touba moom tubaab la tubaab ci boppam mooy ni tubaab bi ñun ñii tey dañoo réer ñu ngi ci dugg sarax lu bon rek la ñuy def bu ñu bëggee génn ci ndëgg sërëx googu ñun ñëpp dañu takk suñu ndigg jëmali jëmali Touba alors ñun ñu nekk fii bëgg di gëmloo nit bon yooyu ay deuxième la nañu toppandoo ay et cetera mais dañuy caaxaan rek sañ bi ci dara kon foog ñu xoolaat beneen yoon bu baax bi ñu war a jaar léegi docteur Meissa Babou est-ce que nit su fekkente ne dafa bëgg a développé wu maanaam ressources yi ñu wax yépp am na fi est-ce que loolu su dee tënku nañ ci ci gëm suñu bopp est-ce que mën nañ développer Sénégal gëm nga ne Sénégal mën na développer boppam. ah waaw parce que soo xoolee développement ñoom Chine nag Inde tey ba ci France gi sax mais du comme li ñuy wax ndar xëyul sotti xëy ñu rek nekk pays développé industrialisé fii ñu toll ñoom tolloon nañ fa wante dafa am loo xam ne nii euh, fulla ak jom moo koy may nit yow fekkente ne yow amuloo fulla bi nga war a am amuloo fayda bi mais kooku da ngay wóor ne mënul jël réew ma ne man fii laa koy jëme day yomb trop nga nga nga toog nag ñu lay wax ne la defal lii ak defal laa su boobaa li la doon war mooy nga xool ne tey ba tey ji nii chinois yi presque duñ fajoo pharmacie li nga lii ñu xeeb Sénégal ñu ko tudde tradipraticien am na ci ñu mën maa ñi ñuy wax maa mën am na ci ñu mën ñu mën a collaborer ak hôpital ñu def ay test ci produit yooyu am na sax ci biir université ay scientifique yoo xam ne ni ñoom sur la base de ces plantes là def nañ ay tests yoo xam ne nii am na ay produits yu ñu presque mën naa ne découvrir mais en tout cas ni ñu façonné nañ ko ba nga xam ne mënoon nañ ko def échelle industrielle mais léegi su fekkente ne côté état yi la ñuy waxee ba tey euh, lan mooy euh, wàllu population bi maanaam askan bi seen taxawaay parce que su fekkente ne état bi aussi am na fi muy jubloo daanaka comme ñun ñoo ko jox suñu baat pour mu doon président am na benn taxawaay bi ñu war. askan bi aussi ci liggéey beeg yeneen yooyu noonu. askan bi amul moyen pour def développement boobu askan bi il faut dañ koy accompagner xam nga euh, askan bi mën na ci ba ci culture am ci cosaanam. am noo xam ne nii mën na koy doxe tey euh, soo gisee soo demoon ci société bu mel ni réew mu mel ni Maroc da ngay gis ne 80 pour cent produits yi ñuy def foofu marocain ñoo koy defar artisanat la mais dafa fekk réew ma dañ ko nangu fii nag ñun dañoo këf suñu xel bi dañoo këf suñu xel yi ba nga xam ne tey ku yeewu lekkoo mburu bu gudd boobu du jar xaw ma fanweer ak juróom au lieu nga wut benn cere buy jar fukki dërëm wala cent francs billaay soo ci defoon ndox lekk ko sax sur le plan nutritionnel non seulement moo gën moins cher mais ñi moo taxaw fenn ne cere laa ndekkee wala ñaari beñe laa ndekkee. déedéet kon yow dañ leen waaw waaw donc branché mais kon nag comme que ñun euh, askan wi seen bopp sax euh, colon bi bi mu bi mu nootee suñu njiit yi suñu njiit yi dañ ñoo dugal ci ay école dugal ñu ci ay ay ay ay forme de benn style de vie. ak mode boo xam ne nii ñun mënatuñu rek ñun ñëpp lañ boole coloniser dama ragal ne il faut lu ñuy wax rupture. ok école tudd nga ko léegi fa la ñuy euh, waxtaan ak euh, docteur Djibi Diakhaté dafa mel ni aussi am na ay lëgët yoo lëgët yoo xamante ne euh, colon bi bàyyi nañ ñu ko ba ci biir école bi mu mel ni ñun dañ am école français bi ñu tabax def Sénégal. bokkul ak école boo xamante ne école sénégalaise la boo xamante ne dafay jàngale tubaab lan mooy euh, depuis indépendance bi ba tey ñun suñu modèle d' éducation wul nañ ko daan defee noonu lañ koy daan. te baaxul te baaxul. manaam baaxul li may wax dëgg la maanaam euh, on a une école au Sénégal mais on n'a pas encore une école sénégalaise. waaw école mi ngi fi waaye amaguñu suñu école. école bu nga xam ni dañ ciy gis suñu bopp xam nga fi mu toll nii li ñu def nii mooy nañu fexe ba grève du am rek. Mm-hmm. xale yi dem jàngi ñoo am fu ñu leen fu ñu leen tëj. Euh, mu mel ni benn genre prison. comme ni ko xalaatkatu tubaab boobu di waxee Michel Foucault moom lay wax les prisons ouvertes maanaam foo xam ne dañ la faa tëj waaye day mel ni tëj ñu la rek waaye li nga xam ne école dañoo war a sentir ci pénc mi ni am na njariñam ci pénc mi ka fa jógee bu jàngee ginnaaw bu jàngee pare dañuy gis ni kii kat gën na déggoo pénc bi te lam fa jàng xarañ lam fa lam fa jëlee ci xam-xam dafay ñëw delloowaat ko ci pénc mi moo xam ci mbay la moo xam ci sàmm la moo xam ci napp la moo xam ci diggante jënd ak jaay la moo xam ci koom la moo xam ci lu mu doon mu jàng lu nga xam ni dina méngóog waaw fa pénc ma jublu mandargay pénc mi aada ak pénc mi cosaanu pénc mi mais tey jii bari na ci école bi ñoo xam ni boo leen waxee Hitler xam nañ ko boo leen waxee gëriñ xam nañ ko boo leen waxee conférence de Yalta xam nañ ko boo leen waxee deuxième guerre mondiale xam nañ ko euh, boo boo leen waxee ci géographie Euh, ay euh, Texas ak yu demee noonu xam nañ ko Mexique ak yëpp xam nañ ko waaye boo leen waxee Cheikh Ahmadou Bamba ñu wokk seen bopp mais man c'est que sama problème mooy. soxna xombal xamuñu ko. mais franchement gis nga gis nga sëñ bi da yàlla dafa def ma dem Gabon ma daje fa ak benn professeur boo xam ni ci koom lay yëngu prof économie la mu ni ma yow Sénégal nga jógee ma ne ko waaw. mu ni ma xam nga Cheikh Ahmadou Bamba mu ni ma xam am naa lu ma ci xam mu ni ma man murit laa waaye du ma ma ne ko fan nga wékku loolu mu ni ma moom daal dafa jàng téere Cheikh Ahmadou Bamba yi nga xam ni dañ koo bind ci ci français mais nee na bi mu ko jàngee moom théorie économique ya mu jàng yépp ci tubaab yi dafa mel ni lii moom moo gën a méngoo ak moom li mu bëgg ak gis-gisam te moo gën a kawee fuuf ci théorie lañ ko jàng mu ni ma kon man kii laa gëm maanaam kii li mu bind ci mbirum koom rek de la wax ci mbirum koom li mu bind man loolu laa gëm loolu moom njariñ boo nga xam ni boroom xam-xam bu màgg bu toll ni Cheikh Amadou Bamba bu tey di Seydi Hadji Malick Sy ñeneen nekk ci penc mi bind loolu jëf ko fi bàyyi nga daal di koy jël teg na le dem di jàngale ay caaxaan ay caaxaan laa wax de ay fecc ak ay woy nga may ma anecdote anecdote bu ndaw ci loolu dama génn euh, daaw daaw jéeg ci benn école boo xam ne nii sama dë entrant sixième xale yi ma tombeek ñu wàcc daw génn bi ma jógee suma kër am ñu ma ca xàmmee dañoo daw ñetti xale sëmm deux tonton tonton tonton ma ne waaw génn ngeen ñu waaw mais tonton qui a lutté contre l'apartheid lañ leen posé woon comme question booba Nelson Mandela lañ bëgg a wax kii ne ma mais tonton moi j'ai écrit Tyson moi j'ai man leen c'est très bien xale bu ndaw bu sëmm deux loo ko jàngale ba histoire Afrique du Sud ba sëmm deux néewoo ko Lat Joor fu mu xeexee néewoo ko dara Serigne Touba lu dul nga naan ko mais nga lutte donc pour wax la même la formation scolaire est extravertie li mu la wax dëgg la billaahi miin mbedd France yi moo ñu gën a yomb fopp ci men ko walla kaw mais mais sëñ bi kunkaan ci man dafa nekk tegtal boo xam ne man gisuma tegtal am na livre yu bëri yu ma liir tegtal yu ñu jox ndaw ndaw yóbbalug ndaw kuy wut kuy sàkku xam-xam ci ni nga war a taxawee ni nga war a ñemee xiif ñeme mar nangu kilifteef teey dal na ñeme sori nelaw ak tayal mu ni ndaw jooju ci sàkku xam yoonu sàkku xam-xam la nekk te kooku ku nga xam ni kuy kawe la ci sàkku xam-xam ku ñuy jàngal ne képp ku ñu dénk alalu mbooloo wala képp ku mbooloo jox ndombo tànk nga jàpp ni yow yaa gën mbooloo boobu di def lu la neex nee na ëllëg bu ñu yeggee ci yowmal xiyam sa biir bi day gonfale ba jëm kaw ay jiit nekk ci di lay màtt Cheikh Amadou ba moo bind loolu ci Masaalikul Jinaan mais yooyu ay ñu bëgg ñoo nekk di ñu gëmloo ay Rousseau man gëwuma loolu sëñ bi. ci ci loolu ma gis ne am na cest à ñun am nañ benn benn solution d'abord ci ci développement comme ni nga ko waxee léegi ci euh, gabonais boobu nga xamante ne nee na du jurit waaye murit la ñu am ko aussi ci éducation ndax lii nga wax nii mais jusqu'à problème nekk di am te ma yaakaar ne xëy na loolu yëpp su fekkente ne dañ ko appliqué jafe-jafe yi nga xamante ne moom lañ nekk nii duñ ko am. traque des biens mal acquis dana fi jeex. mais mooy fulla gi xëy na kenn ku nekk yow liñ liñ la dénk di nga ko mën a jëfe waaw waaw te defe naa ne loolu aussi su fekkente ne euh, jubluwaay boobu nga xamante ne mag ñi jox nañ ko te mu mu mu te mu lépp tëggu ci dëgg defe naa ne développement danañ yomb. xam nga maa ngi doon wax léegi euh, hors antenne ne soo demee France. dañoo am seenub roi nga dem Espagne ñu am seenub roi Angleterre ña nga seenub reine buur bu jigéen ba ma fàttali ne Espagne su ma juumul altine bu jot premier ministre ba day dem ci roi bi jox ñu def benn séance de travail léeg sax mu jox ko mission yi confier ko ko premier ministre bay déplacé wu dans une république te ñooñu ñooñu jàng république Sénégal suñ ne parité ñu ne Touba ñu ne Touba ne fii de moom espace la boo xam ne nii kenn du fi def parité ndax dafa am ay lu ñu fi dund ay valeur la loolu nangu nañ ko Monaco bañ nañ ko ba bokkut ak euh, desu France loi ak fiscalité bokkuñu dañ ko ber Angleterre ak euh, fi ma lay wax noonu tamit ñoom it kenn ku nekk am nga sa benn ruq boo xam ne nii voilà ak Rome léegi ñu ne déedéet Touba waruñu wax loolu kat ndax nous sommes dans une république xam nga eh, jikko ju yàqu weesuwul eh, ñëpp bëgg bokk classe mënul nekk jikko eh, yàq réew weesuwul amul benn référence loo wax ñu ne la république loo xam ne da nga koy importé. ok docteur Djibi ci ñàkk xam valeur yooyu ak itam ñàkk aussi dund li nga xamante ne moom la mag ñi jàngale te loolu yëpp école bi yebee ñu ko lan la mën a indi ci jiixi jaaxa ak jafe-jafe ci côté. nekkinu nit ki ak statut bi mu war a mën a. nit ku nit ku nit ku bañ a nekk nekkinu nit nga wax maanaam ku dem ba sori loolu nekkatoo xam nga nit mu ngi dox <laughs> di dem et cetera fekk ne nekkul parce que amul benn royuwaay amul benn màndarga kooku dafay dox di dem rek nit dafay am fi nga xam ni moom ngay wéeru mu nekk lu nga xam ni yow yaa ko moomal sa bopp nga gis ki sa bopp te loolu da doon gën a yomb maa ngi la wax léegi pour mobiliser l'impôt maa ngi doon wax léegi ni am ñun de am nañu yoon yi nga xam ni moo gën a wér moo gën a gaaw pour que nit ñi mën a nangu di joxe sëñ bi bu ne léegi dañuy defar jumaa Masalikul Jinaan fii ñu ni euh, ku ne na am loo ci loo ci rotal pour loolu mën a sotti mais dañuy dem ba maanaam lañu soxla woon daf koy weesu di demee deme deme deme mais système yooyu nekk ci sa biir réew nga ni duma ko daal di jël exploité ko utiliser ko pour jëmale mbir yi kanam sëñ bi bi mu wootee ni nañu bay xel kom dañ koo bay ba mu mët sëkk nga ni système boobu du ko utiliser pour jëmale affaire yi kanam damay dem di xooli tubaab yi ñoom naka la ñuy doxalee ak ay affaire yu demee noonu loola li muy indi ay yàqu-yàqu dong la ay tardeel sa bopp la. léegi depuis indépendance ba tey est-ce que mën nañoo xam ban type de sénégalais d'abord lañu tubaab yi bàyyil euh, ñi fi ñi fi wutu tubaab yi aussi ban type de sénégalais la ñu formé ba ñu toll nii. caaxaankat la ñu fi tubaab bi bàyyil fookat fecckat ak woykat. mag ñi nga xam ne ñu baax la ñu ñoom xamala la ñu fi bàyyi Cheikh Ibra Fall la ñu fi bàyyi Cheikh Ibra Fall koo xam ne dañ koo formé ci liggéey ak sàkku xam-xam dama lay gëm mu xamal ni Cheikh Ibra Fall université étudiants yi dañ ma mës invité ci waxtaan ci Cheikh Ibra Fall man leen li mu bind ci livre dafa bëri ñu ne ah ñun de xamuñu benn ma ne lu mu def livre la acte bu mu posé livre la lu nga xam ne mën nga cee jàngat la Cheikh Ibra Fall noble la woon noble famille princière la bokk dafa jàng xam-xam dafa jàng alxuraan ba wàcc am xam mais daal di ñëw nag ci sëriñ bi daal ni man de li ma gëm moom mooy kilifteef moom mooy autorité ku bëgg a sàkku xam-xam ku bëgg am lu baax ku bëgg a am yenn vertu yi da ngay humble mu wane humilité boobu maanaam wàcce sa bopp suufeel sa bopp detteel sa bopp parce que ki gën a yëkkatiku moom mooy ki gën a nekk loolu Cheikh Ibra Fall jàngale la euh, mu mu mu dama ne sëñ bi bu fekkee ni réew mii ak réew yi ko wër ak àdduna bi dañoo bëgg jëm kanam Philippe Couti moomu la mu bind fële ci France mooy ñun ñëpp nañu takk suñuy ndigg mel ni Cheikh Ibra Fall tegu ci yoonu Touba foofooy yoon bi. Euh, docteur euh, Moustapha Ba dafa mel ni aussi dépp indépendance ba tey dafa am ay disparité wax nañ ko côté économique côté social ci njàng meeg fu nekk ndax tubaab yi bi ñu ñëwee commencé la Gorée Saint-Louis Dakar ak euh, Rufisque loolu la ñuy wax ñu dellu si waat ñii dëkk fii ñii dëkk fële ba tey jii kaw ga kii taax yi bokkul. te loolu yëpp nekk ay disparités yoo xamante ne indépendance ba ba léegi loolu fexe guñ ko régler même économiquement. c'est-à-dire que ne ci benn réew ñaari at yu wala ñetti at yu ne ñu changer façon politique fu kon kañ lay sotti. donc comme foog mu tegu te gëm-gëm. mais mais voilà c'est-à-dire que amoon benn benn genre assise nationale de développement laa wax de waxuma assise national su la su la su la mbay mi intéressé nga ne agricole su la sport bi intéressé nga ne assise nationale agricole euh, sportif su la euh, jàng mi intéressé nga ne nga ne scolaire déedéet waxuma loolu comme Sénégal nu ñu koy wëlbatee nu ñu koy redressé ñu def assise national muy ndëpp national baykat bi ñëw sàmmkat bi ñëw ñëpp toog dañoo la ñu war daal la defagul mooy jàpp ci valeur yi ji bi doon wax yi nga xam ne mag ñu baax ñi bàyyi nañ ko fii amit suñu fullay joxoñ suñu yoon ni fii lañ jëm. voilà ci bi ci disparité yooyu sax dañ ci nemmeeku yu bëri sànq ni tudd nga population Dakar nga xamante ne moom moo ëpp population république euh, Gabon waaye soo xoolee aussi ci côté démographie ba tey Touba moom moo ñëw. dëkk bu mel noonu nga xamante ne aussi li muy am ci ay nit ci année ci ay magal ak ay ziar ak ay xeet yu mel noonu économie bi di fi développé noonu mais foofu aussi état bi exploité exploité wul niche boobu ba infrastructure yi ci war ak yeneen yoo xamante ne dana tax. donc mu nekk parce que d'abord tudd nga Gabon nit koo xamante ne aussi nee na wax naa ko sànq nii du jullit waaye murit la euh, Philippe Doucet kii maa ngi naan Philippe Doucet euh, Gouty wax nga ko léegi moom ci boppam mii demande à ce ñu jël yoonu Touba kon déjà Touba dem na bitim réew te yóbbu foofu boppam keneen yóbbu ko lu sëñ Touba est-ce que ñun aussi ñun Sénégal waruñu exploité loolu ba mu nekk benn point boo xam ne dana tax ñu mën a jaay sax réew mi. loolu moom mooy dëgg c'est-à-dire que bu loolu moom mooy dëgg tourisme religieux dafa am euh, Makka lii lii bokk ci développement am te mu wóor tourisme religieux la Makka euh, boo demee Rome bi ñuy wax le Vatican dafay am tourisme religieux tubaab yi dafa am ay gox yi nga xam ni dañ fay fexe ba tourisme religieux di fa am ñi nga xam ni dañuy dem di euh, di ziyaare ji Rome dañ fay jaar. jaar ci yenn ndox ñun leen foofu da nga fay sangoo yu demee noonu développer tourisme religieux euh, loolu da koy développer ci interne mais da nga koy développer au niveau international nit ñi daal di ñëw gis ni fii kat mais xam nga tubaab bi dañu nax ci lu bëri quoi dañ ñoo gëmloo ay affaire ay affaire laïcité boo xam ne dañ ne affaire diine buñ ko fi wax mais loolu mënul sotti cest à mënoo nekk ci suñu réew yi ba pare daal ni diine kenn du ko fi wax loolu laa la bëgg cest à il faut ñu xam ni ñun loolu la ñu gëm te nit nag mënoo ko def développement ba pare jël gëm-gëmam teg na leen c'est pas possible donc Touba Tiwaawan euh, Kaolack Njaasaan euh, fii nu mu tëddee Yoof dëkk yooyu yëpp mën nañu développer tourisme religieux bu nga xam nit dina jóge fépp ci àdduna bi ñëw di xool parce que touriste yenn saa yi dafay ñëw dafa bëgg a jàng yenn saa yi dafa bëgg a xam euh, ay ay ay baax yoo xam ne amul ci réewam yenn saa yi dafa bëgg gis nit ñi seen gis-gisu àdduna lan la. am na ñu nga xam ne ci gëstu lañ ci jublu ci gëstu dañuy ñëw di gëstu di xool lii lan moo ko lal lan moo indi lii lan moo indi lale mais loolu nag da nga koy promouvoir te bu ci am booy def parcours touristique di ko dessiner ci sa ci sa politique touristique nga dugal ci loola. parce que loolu moom moo ëpp solo moom moo gën a mën a attirer ay nit mais dafa yamul ci tourisme rek dafa ëmb lépp maanaam ci système éducatif bi da ko ciy dugal mu leer naññi nga ni man lii laay jàngale. nga ni man lii laay jàngale euh, bu ñuy wax esprit bawol bawol am na lu muy tekki. am na lu muy tekki c'est l'entrepreneuriat. waaw entrepreneuriat da euh, may sa damay damay wax ni dans les années 80 bi ñuy def DIR direction à l'insertion à la réinsertion et à l'emploi avec oh, l'opération maîtrisard ñu jël maîtrisard yi ci bëri jox leen ay ay jumtuwaay pour ñu liggéey ñenn ñi bi ñu demee quelque temps dañoo am problème ñi nekkoon ci biirum oto ñi nekkoon ci biirum boulangerie. mais jamono jooju ñu gis ñoo xam ne ay bawol bawol la ñu ñu ngi woon ci même domaine yooyu di continuer di ci liggéey amuñu problème kon ñoom dafa mel ni am na daara bu ñu jàngee yenn affaire yi yu ñu jàngee management yu ñu jàngee gestion mais soo ko xoolee ci réew mi li ëpp ci ñi yore konko bi fi mu nekk nii ay ndogu daara la mais nag moo tax bu ñu am complexe ni xool ni ñii li ñuy def du ay yëfu dof non c'est clair am na am na am na fu mu tegu am na ci xam-xam voilà ñoo ngi toujours ci cadre euh, chef religieux yooyu yooyu nga wax noonu Euh, d'abord ci état yi pour euh, démocratie dañuy faral di naan il faut les trois la il faut un pouvoir contre-pouvoir et un contre-pouvoir contre le pouvoir c'est l'opposition un contre-pouvoir c'est la presse mais il faut aussi des stabilisateurs mooy les marabouts ñun fii ni Sénégal ñooñu noonu ban rôle la ñuy jouer ci stabiliser d'abord suñu démocratie mais aussi fexe ñun ñu ñu dund ci ci harmonie. waaw mais boo dee xool tey jii euh, keppaaru sëriñ boo dem di nga fa fekk nit yu bokk ci waaso yu bari. di nga fa fekk ay nit yu bokk ci liggéey yu bari di ci fokk nit yu jógee ci ay gox yu bari ñëw dajaloo fa nag nekk ci péncu sëriñ boobu. loolu dafay indi ak euh, demlanteeg dikkalante ay nit yu nga xam ne bu fekkul woon loolu ku ci nekk da ngay tëju ci sa bopp bu ko defee loolu mën na indi ay problème parce que du ñu xamante duñ tàmm ñu demlanteeg dikkalante. Euh, tey jii confrérie yi joué nañu benn rôle bu important ci li ñuy wax l'intégration ethnique intégration à la fois verticale maanaam da ngay ñëw ci pecc Euh, ci keppaaru sëñ bi fekk fa général fekk fa ministre fekk fa professeur fekk fa baykat fekk fa ñoom ñëpp dafa am lu leen boole ñu bokk ko moom mooy taalibe je crois que pénc bi tamit war nañ koo jox cër pénc bi war nañ koo jox cër bañ koo utiliser ci politique donc loolu moom mooy suñu problème maanaam li nga xam ne dañ ko waroon a pour jëm kanam ñun dañ ko utiliser pour jëm ginnaaw ok léegi euh, docteur gis nañ également Serigne Serigne Serigne Soosu dafa am lu bëri loo xamante ne joué nañ ko ci dëkk bi euh, docteur Djibi wax na ko léegi mais ci côté développement ak côté économie aussi euh, ñoom kenn mënul wax te tuddoo leen d'abord li ñu bind bàyyi ko fi ak itam li nga xamante ne tegoon na ko mu doon ay actu ñu posé woon jëm ci mbéy ak commerce. waaw mais xam nga man damay xaw a jaaxle tuuti léeg-léeg. bu fekkente ne da ngay gis lu ne lu ne fànn xam nga ñoom ñoo fi nekk du yuuxu naan mbay mi moo ñu yor nañ ñu dimbale bay ban sëriñ moo amul tool Sénégal ban sëriñ rek moo amul ay hectares te li ji bi wax moo ci ne c'est-à-dire sëriñ boobu li mën ministre mënu ko président de la république sax mënu ko mooy kàddu bi mu yor ne kaay leen ñu bay donc tool ba euh, euh, gars yi bay def nañ ci lañ ci war donc est-ce que ñun amuñoon déjà benn base boo xam ne nii tey soo doon catégoriser l' agriculture du Sénégal est que doo njëkk a commencé ne les marabouts teg fee daal di wut nag benn politique encadrement dimbale leen. tey ñëpp ñu ngi fiy jiiñ ci way politique yi sooy xool ay diplômes yu rëy mais amuñu jikko bi xëy na ndax jikko bi mooy ki nga xam ne su njàng ma soriwut it am na lu mu rus am na lu mu jom. kon loolu problème de yar lay nekk. voilà donc ñu ñu bañ ko jaawale donc dama ne sëriñ bi dana def ci nit ki yar bu baax am na tool enfin économie mi ngi mi ciy liggéey ñetteel ba euh, sëriñ bi su su coow bëree mais moom la ñu woo xam nga ñoom ñenn ñi nañ ma baal nag moo ko mais dañoo baadoo rek suñ jekkoo ne sëñ bi daal na yem ci course gi mais tey soo leen doon bëgg a rey. ñetti xeer ngay sànni ñu daw ne sëñ bi wax ci. voilà léegi pour ñu jeexal dañ gis ne fi mu nekk nii lu aju aussi ci euh, indépendance nit ñi ñoo ngi naan indépendance indépendance mu mel ni baat la rek. waaye dafa man man man damay wax li ma waxoon léegi rek man daal première indépendance bi moom gisuma ci fulla gisuma ci moom moomuñ suñu bopp léegi kay deuxième indépendance bi lay laaj euh, ji bi kañ lay commencé. voilà ji bi laaj nañ deuxième indépendance bi la wax est-ce que indépendance boobu bi ñu wax ndax am na ci dañ ko tudd rek walla lan moo xew ndax góor gi moo ngi doon defe naa ci jamono Senghor la doon naan indépendance totale kañ lay jeex. indépendance daal mi ngi jeex bu ñu delloo ci njàngale sëñ Touba jërëjëf docteur Djibi Diakhaté di ab sociologue chercheur enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ak itam di gërëm ki nga xamante ne moom mooy Meissa Babou nekk itam jàngalekat ci wàllug euh, koom-koom lay yëngu nekk itam foofa ci université Cheikh Anta Diop bu Dakar mbokku téléspectateurs yi ñu fàttali leen rek tey jii dañu amoon benn plateau spécial ngir waxtaan. Euh, ni nga xamante ne euh, Sénégal bi mu amee boppam moomee boppam ba léegi xëy na ba tey baat bi ñoo ngi koy euh, wax mu am lu bari xëy na lu des waaye fexe woon nañ daal të ci tënk ñëwaat ci jéego yi nga xamante ne réew mi def nañ ko ci wàllu politique économie éducation ak yeneen xeet yu ni mel xam naa danañu amaat beneen daje ak suñuy invité yi ngir gën a waxtaanewaat yeneen ponk yoo xamante ne dafa aju ci mbir mi kon ñoo ngi leen di gërëm di leen sant ba beneen yoon.